Serigne Sam Diagne Serigne Sam Diagne mi ngi feeñ jamono ci atum 1928 ci dëkk bu ñuy wax Kër Sulay Kër Sulay nag mi ngi ci wetu Dendey boog Serigne ma Ndumbe Mbàkke ci suuf si nag di Ngeeraan ci dëkk boobu nag la Serigne Sam Diagne mi feeñe jamono ci atum 1928 Serigne Ahmadou Ndumbe Xabaan moo ko tudd tudde ko boppam muy doomu Serigne Sulay Diagne ak soxna Aminata Diagne moom Serigne saam Diagne nag am na ñu mbokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen di ki ñuy wax soxna Mbeen Diagne bintu soxna jaañ ak nag ay seex nag yu mu bokkaloon soxna Aminata jaañ ak sëriñ Souley jaañ waaye seex yi nag dañoo guddul nag aw fan njaboot gi nag la sëriñ Saam jaañ nag bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen laataa sax ñuy xuus nag ci mbirum sëriñ Saam jaañ di turandoo sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke wi ñu wax leen njaboot gi mu bokkal waajur wu jigéen ñoom ñooy kan muy ku ñuy wax soxna Mbeen jaañ soxna Mbeen jaañ mi nag bi mu matee dem kër ku ñuy wax Màkka jaañ nag lañ ko jébbaloon ba tax na moom Màkka jaañ nag am nañ ak njaboota muy ku ñuy wax soxna Seynabu jaañ ginnaaw bu mu jógee nag ci sëriñ Màkka Jaañ lañ ko jébbaloon nag ku ñuy wax sëriñ Paate Amar mook sëriñ Paate Amar itam nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññi ku ñuy wax soxna Assa Amar sëriñ Ibrahima Amar sëriñ Njaase Amar ak soxna Joor Amar kon njaboot gii nag ñooy jarbaati sëriñ Saam Jaañ yi moom sëriñ Saam Jaañ nag bi mu matee dal alxuraanul waa waajuróom sëriñ Mbay Géey nag la ko joxoon sëriñ Mbay Géey nag moo ko jàngal alxuraanul karim ba mu géeju loolu itam nag ci wàllu njàngum alxuraanul karim ci loxoy sëriñ Mbay Géey nag la jànge xam bi muy jànge nag ci loxoy sëriñ Mbay Géey moo ko rakkam nag sëriñ sang jaañ ñoo fa nekkandoo woon ginnaaw ba mu jàngee alxuraanul karim nag ba mokkal la delsiwaat nag ci loxoy waajuram di sëriñ Suley Jaañ waajuram sëriñ Suley Jaañ nag moo ko tarbiya moo ko yar booba fekk na nag waajuram di sëriñ Suley Jaaña sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke xabaan jébbal ko nag cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mu nekk nag ci loxoy cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag yóbbu ko nag ci dëkk bee mu sancoon di daarul lislaam nekk itam nag ci dànki cheikh ko doyaloon foofu nag moom sëriñ Souleye Diagne ba tax na nag sëriñ Sam Diagne mii nag bi mokkalee alxuraan dafa ñëw nag ci loxoy waajuram ci foofu ñu tudde nag daarul islaam danki ca naar ga nekk fa nag di fa tarbiyu ab diir bu néew nag la fa def dem nag ci dëkk bii ñu tudde Tambacounda doon fa jàng nag li ñu tudde oto ci dëkk boobu nag di Tambacounda itam nag la amee permis ba tàmbali fa dawale ginnaaw ba nag la fa jóge nag ñëw njaareem ci président tribunal bu njaareem doon ko dawalal ginnaaw président tribunal bu njaareem nag la ñëw itim nag ci arrondissement bu kayal nag chef d'arrondissement bi ginnaaw kayal nag ci chef d'arrondissement bi mu doon dawalal lafa fa bàyyi ko nag dem Thiès doon dawal tim nag président tribunal bu Thiès nekk itim nag ab sofóoram ginnaaw Thiès ci président tribunal ba la fa jóge nag ñëw Mbàkke ci préfecture nag bu Mbàkke di fi dawal itim nag ay oto bi mu ñëwee Mbàkke nag ci préfecture bii nag la ko lenn nag ci magi Sëriñ Suley Jaañ fekk foofu nag di ko xamal ne nag dañoo bëgg nag nga ñëwaat nag fële ñu tudde Daarul Islaam Danki ci suuf si nga xam ne nii nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag moo ko joxoon sa waajur di sëriñ Souleye Diagne nga ñëw nag nekk itam nag jëwriñu kër ga ñëw itam nag yor nag sa waajuroo sëriñ Souleye Diagne ginnaaw bu koñ lenn nag ci magi sëriñ Souleye Diagne nag fekk see nag ci Mbàkke Bawal ba wax ko wax jooju nag la sëriñ Sam Diagne nag bàyyi nag lépp lu mu doon defa ñibbisi nag naar ga nekk nag ci ron waajuróom nag sëriñ Souleye Diagne daa di sanc daara nag ci dëkk bu ñuy wax nag mbusoobe soriwul dara nag daarul islaam dànki nekk nag jëwriñu nag njabootu sëriñ Souleye Diagne gi wuuf nag ay rakkam yor kër nag sëriñ Souleye Diagne lu weer nag la nekk ak waajuram waajuram nag daal di génn àdduna daara jooju mu sancoon sax foofu ñu tudde mbu sóobe am na lenn sax ci ak njabootam goo xam ne sax foofu lañ feeñe jamono muy ku ñuy wax sëriñ Mouhamadan Diagne ak ku ñuy wax soxna Ngoy Diagne am na lenn itam nag ci ay rakkam yoo xam ne ni itam nag nekkoon nañ faak mooma ñu mën cee ràññee am di Diagne mi toog toogaayu sëriñ Souley jaañ jamono jii ak rakkam ju ñuy wax oustaz Abdoulaye Diagne ak lenn itam nag ci mag ñi ñu mënoon caa ràññee ñuy wax sëriñ Sam Diop ak sëriñ Mbacke Amar ñu gën koo xam ci sëriñ Mbacke Dieng ñeneen ak ñeneen ñeneen nag ñu fa nekkoon ci foofu itam nag la nekkoon lépp loo xam ne nii nag ñore na fa mu yit ko waajuram di sëriñ Souleye Diagne noonu itam nag ni la ko toppoo ba ni fi sëriñ Souleye Diagne bàyyi ko ci atum 1968 sëriñ Souleye Diagne nag mi ngi fi bàyyi ko bisub ajjuma ñaari fan nag ci weeru baraxlu ci atum 1388 nag ci gàddaay gi ajjuma ñaari fan yi baraxlu ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 25 octobre 1968 vendredi 25 octobre octobre 1968 ci dëkk boobu ko cheikh Mamadou Moustapha Mbacke dëloon di Narga ginnaaw bu waajuram nag sëriñ Souleye Diagne génnee àdduna la sëriñ Sam Diagne nag toog nag toogaayu nag sëriñ Souleye Diagne wuuf nag njabootub sëriñ Souleye Diagne gi ay fan yu néew nag la ci tekk mu dem ziyaare ji nag sëriñ cheikh Mbacke Gaynde Fatma di ko xamal ne sëriñ Souleye Diagne daal bàyyi koo na fi damaa bëggoon nag lépp loo xam ne nii daal sëriñ Souleye Diagne nag daana la ko defal ma continuer nag di la ko defal sëriñ Souleye Diagne nag sama yëf yi bopp waaye nag kër sëriñ su lay jaañ dafa am na neen itam nag nu ma ko fekke ma la doon laaj nag ba xam dama koy bàyyi noonu wala dama koy soppi dama leen fekke nag ñuy doxee nag doxinug bàyyi faal du ñu julli du ñu woora sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag doon na ko xamal ne nag soo demee nga digal leen nag ñuy jullee ka woora ginnaaw bu mu jógee nag ci sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma la ñëw nag dajale mbooleem nag ñu yaakaaroon sëriñ su lay jaañ di leen wax ne li sëriñ su lay jaañ manoon nag man mënuma ko li Njaañ daana def nag lu mu am nag yit sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wala ka mu yaakaar man nag munuma loolu ndax dama amug njaboota te dafa am nag lu ma war nag ci ñoom kon nag maag sëriñ Souleye Diagne nag bokkuñu doxalin lépp loo xam ne ni nag suñ borom mi ngi koy santaane nag ngeen koy def képp ku bëgg ànd ak man na nga ànd ak man nag ci nii ci la jële woon nag ku ñuy wax sëriñ Mbacke Dem di doomu sëriñ Mouhamadou Dem indi ko nag ca daara ja muy jàngale nag lislaam mu jëlaat keneen nag ku ñuy wax sëriñ Sam fa itam nag di jàngale lépp loo xam ne nii nag sëriñ Souleye Diagne itam nag bàyyi woon na ko fi sëriñ Sam Diagne nag wéyal ko moo xam daara nag yoo xam ni sëriñ Souleye Diagne moo ko fi bàyyi woon ci biir daara nag yu fi sëriñ Souleye Diagne bàyyi woon ñu man cee ràññee daara ju nekk nag ci gàdd bisik daara ju nekk nag ca kër Souleye daara ju nekk nag ci njal biir ak daara ju nekk nag kër ji bi yàdd ak daara jooju nekkoon nag ci daarul islaam dànki ak daaray boppam nag jëm taxawaloon nekk nag ci mbusoobe kóllëre yi nga xam ne nii nag sëriñ Souleye itam nag na Moustapha Mbacke bàyyee nag ci tundu danki woowu muy lenn nag ci doomi mag ñi moom itam nag dafa wéyal nag kóllëre yooyu ci biir kóllëre yooyu nag ñu mën cee ràññee ku ñuy wax Serigne Cheikh Dieng dëkk boobu nag di danki Baye Abdou Sey Dieng Serigne ci dëkk sëriñ nag di danki Serigne Cheikh Diop ci Mbey Serigne Moustapha Sarr Kolabaan Serigne Cheikh Sarr Baye Madoun ak Serigne Moustapha Bey ak ñeneen ak ñeneen mag nag ñu nekkoon nag ci tundu Daarul Islam danki googu ginnaaw bu mu toogee toogaayu Serigne Souley jëmmi sëriñ Souleye Diagne ñu mën cee ràññee nag ci biir mag ña ku ñuy wax baay mbay Diagne ak ku ñuy wax baay Maxa Diagne ak ñuy wax Baye Makhoudia Diagne ak ku ñuy wax Baye El Hadji Cheikh Sow ca Ndakaaru Baye Alla Diouf Baye Ibrahima Diagne ca Ndakaaru Baye Sayer Diagne ci Danki ak ku ñuy wax Serigne Jibi Yàdd Baye Mor Tandine Baye Dan Samb miy waajuru na Xaadim Samb bu RTS ak ñeneen ak ñeneen nag ñoom àndaloon di liggéey nag ngir jëmmi sëriñ Souleye Diagne ji tax na lu takkoo takkoo takku nag def na ko ànd koog nag mag ñii ñu leen tuddal ci bu mu wuutoo nag sëriñ Souleye Diagne ci ndigalul Cheikh Mbacke Gaynde soixante-dix nawet boobu nag mu bayoon lépp loo xam ne ni nag tukkee woon na fa nag ca nawet ba foboon na ko nag yit sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba ci jur gi nga xam ne nii nag ñoo bayoon tool ya ak nag ab taawam di sëriñ Amdi Jaaña ginnaaw bu mu yitee addiye jooju nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sax bisib keram mi ngi koy laajca doomam jooju nag di sëriñ Amdi Jaaña lan nag lay def mu di ko xamal ne nag mi ngi jàng sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag di ko xamal ne na ko bàyyi nag mu wéyal am njàngam addiye yooyu nag bi mu koy yóbbu moog rakkam am di jaañ nag ñoo àndoon ci atum 1971 moom Serigne Sam Diagne Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doon na ko liggéeyloo nag ay nekk ci dëkkub Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke bii ñu tuddee njurul Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke moo sàkku woon nag ci Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci daaraam jooju nag di njurul ñu wut fa nag ay nekk Serigne Sam Diagne bokkoon na itim nag ci ñi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag joxoon ndigal ngir nag ñu defaral Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke ay nekk ñaari néeg nag la Cheikh Saliou Mbacke ci dëkk boobu nag di njurul la ginnaaw bu Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nag yëgee na Serigne saam Diagne la Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag jox ndigal ngir mu defar nag néeg ya yónni woon na ku ñuy wax Serigne Cheikh Soxna Diop Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di ko fàttali ne est-ce que moom néeg yi mu bëgg Serigne saam Diagne man na ko Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di ko wax ne Serigne saam Diagne kay mën na ko ginnaaw bu Serigne saam Diagne defaree néeg ya nag ba noppi bi mu ñëwee nag jox Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma caabi ya Serigne Mbacke Soxna Lo ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma boolee loon ngir ñu yit ko sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke bisu keroog nag njurulitim nag lañ fekk sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke jébbal ko caabi ya sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke nag ginnaaw bu mu ubbee néeg ya santoon na sëriñ Sam Diagne trop ci liggéey bu rafet bi nga xam ne nii nag liggéeyaloon na ko ko ndax doon na ko wax ne sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi la jox ndigal ba nga liggéey néeg yi dana la fay waaye man mii di sëriñ Touba seex Salihu Mbacke nag danaa la fay itim sama fayuk bopp sëriñ doomu aadama nag ju ko njëkk a liggéeyal nag lu ko yéem néeg yee nag bant yi ñu tudde garabu mangi ak bu bois rouge nag la ko liggéeyee te néeg bu ne itam nag ba mu ko liggéeyee ba noppi bàyyi woon na fa nag ak kaamilub alxuraan ci atum 1972 sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma joxaatoon na ndigal nag sëriñ saam Diagne ngir mu liggéeyal ko nag ñeenti néeg ci quartier bii ñu tudde Touba Taïf nag ci Touba ginnaaw néeg yooyu nag bi mu ko liggéeyalee sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba noppi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag joxaatoon na ko ndigal ci at Mbàkke Bawal ci kër Baxaw Faal liggéey fa am néeg ci atum 1973 Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma joxaatoon na ndigal nag Serigne Sam Diagne mu dem nag ci dëkk bu ñu tudde Daaru Salaam Gàlle defar fa itim nag ay néeg ndigal loolu mu joxoon Serigne Sam Diagne nag ci Daaru Salaam Gàlle moo ko ñuy wax Serigne Touré ndogal la ko boolee loon ak Serigne di Seck Rijaal ak waa kër Serigne Moodu Mbenda Faal gi kenn ku ne nag liggéey fa ay néeg ci atum 1974 Serigne Sam Diagne delluwaatoon boole ngir yeesalaat kër ga ci atum 1975 sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma joxaatoon na ndigal nag sëriñ saam Diagne mu dem nag Daaru Salaam Darma mu amal fa nag mbojjum dugub ginnaaw bu ñu jógee Daaru Salaam Darma la ko yebal itam nag bay laa mu amal fa itam nag mbojjum dugub ci atum 1975 boobu itam bi ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde ma nag di gërëm ci liggéey yooyu mu ko defal ci lettre bi mu ko doon santee ko gërëm ca biir lettre ba nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde saadeex nga baatub murit saadeex boobu nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma boole woon ci lettre bu mu bindoon sëriñ saam jaañ moom la ak njabootam itam nag jàpp ci bis biñ koy fàttaliku di ko ko màggalal baatub murit saadeex yombul nag ab sëriñ nag wax ko ab taalibeem te sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nag wax na ko seen waajur ci lettre nag bu mu ko bindoon loolu moo waral nag njabootub sëriñ saam jaañ gi jàpp nag bis boobu nag def ko bisu mbégte di ci fàttaliku waale nag sëriñ saam jaañ ca atum 1975 boobu ba tey Mbàkke Gaynde Fatma bindaatoon na lettre nag Serigne Sam Diagne di ko laaj nag addiya yu toll nag ci juróom-ñaar fukki junni waaye Serigne Sam Diagne nag bi muy yóbbu addiya ya téeméeri junni nag la yóbbu woon bu buñ ko laajee nag lu tax nga yóbbu téeméeri junni tañ laaj la juróom-ñaar fukki junni muy wax na li ci des nag moo ko ci dolli ci atum 1976 ci ndigal nag lu Serigne Touba seex Abdoul Ahad Mbàkke joxoon Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ci dëkk boobu nag di Touba Belal ngir ñu amal fa nag ab ne itam nag damaa bëgg nag nga wax ko nag képp koo xam ne nii nag doomu cheikh la mu yëg nag ndigal li sëriñ Saam Jaañ ginnaaw bu mu bàyyi koo Touba jaar fi nga xam ne nii nag moom mooy baan daa dem nag Saalum ci njabootug nag sëriñ Alioune Seck wanaar gi boobu nag sëriñ Elaaji Yaasin sekk moo toog toogaayu sëriñ Alioune Seck waaye ba mu de eggee nag sëriñ Basiiru Seck nag la fa fekkoon sëriñ Basiiru Seck nag di ko xamal ne daal sëriñ Elaaji Yaasin sekk nag mi ngi jamono jii nag Gàmbi sëriñ Saam Jaañ Gàmbi itam nag la dem yëgal sëriñ alaaji Azim Seck nag mi ngi ko doon xamal ne ginnaaw fekkoon nga fa sëriñ Basiiru Seck mënoon nga ko koo wax ginnaaw bu mu bàyyikoo Gàmbi nag la dem Ndakaaru ci rajo bi ñu tuddee rajo Sénégal def fa nag ab communiqué bu yaatoo yaatoo yaatu doon xamal nag askan wi ak mbooleem nag doomu seex yi di leen wax ne ginnaaw bu ngeen jotee ndigal li man nag danaa leen jiitu ji maa fay njëkk maa fay mujj te maa fay man lool daal bokkoon na itam nag ci lim bindoon nag ci diirum ñeenti fan liggéey ci biir liggéey boobu nag ci la sëriñ saam jaañ jëlee nag feebar nag bi ko jëlee àdduna ba tey ci liggéeyu sëriñ saam jaañ lii ñu tudde nag daayira cheikh yi te ñu bootu nag ci daarul xuddoosa ginnaaw yàlla nag xalaatub sëriñ saam jaañ la moom moo ci doon waxtaan nag ku ñuy wax sëriñ Abdoulaye Diop ci dëkk bu ñuy wax ngay ya ginnaaw buñ ci waxtaanee ba noppi nag la ko sëriñ Abdoulaye Diop nag bu ngay nag rafetlu ñu sol seenu dàll nag ñëw seet si nag sëriñ Madiba Silla ndax booba itam nag sëriñ Madiba Silla nag nag ci Ruuxul Xuddoos ginnaaw buñ ko ko waxee nag la ko sëriñ ma Madiba Sylla itam nag rafetlu ñu dem nag ci sëriñ Cheikh Fall Bayib Góor yëgal ko ko sëriñ Cheikh Fall Bayib Góor itam nag rafetlu ko ci lañ ko sase nag moom sëriñ saam Diagne di ko wax ne nag na bind mbooleem nag seex si wala doomu seex si ci benn kayit na ndax ñu man leen a xam ginnaaw bu mu wëree réew mi nag la bind ñépp nag dajale leen bi ñu tudde nag daayira seex yi bu amee nag ginnaaw yàlla nag sëriñ Sam Diagne la ndax ab xalaatam la te itam nag moo ko dox nag ba mu toll fii sëriñ saam jaaña li ñu tudde nag mbaarum daarul xuddoos bi ñu tudde liwaadul hamdi bu njëkk nag daaru xuddoos nag amoon na am mbaar nag bu ndaw waaye mbaar mii nga xam ne ni nag moom nañ fi jële nag tabax nag liwaadul hamdi sëriñ saam jaañ itim moo waxoon nag seex si wala lenn itim nag ci doomu seex si di leen wax ne nag at mu jot nag daaru xuddoos itim nag dana soxla am mbaar rawatina nag ci màggal yi nga xam ne nii nag ñu ngi ko fii amal dañ fee def nag mbaar moo xam ne nii du nag at mu jot nag ñuy mbaar ginnaaw bu si rafetloo nag lañ fi defoon mag nag mi fi ne nekkoon mbaarum seng moom nag ci atum 1976 nag lañ ko fi defoon loolu sax tax na ci atum 1977 ci màggalu 4 mars googu amoon nag ci atum 1977 bisib keroog nag bi sëriñ Saaliwu Mbàkke ambassadeur jëlee kàddu nag ci turu sëriñ Cheikh Mbàkke faat Fatma mi ngi doon xamal nag mbooleem nag waa Daarul Xuddoos rawatina cheikh yi ñun ñëpp nag nañ maase nag fàttaliku sëriñ Saam Jaañ ndax heure bii daaw nag mi ngi fi woon nag ñun ci mbaar mii tim nag ñuy amale màggal gi kon nag ñun nag nañ taxaw nag fàttali ko ñaanal ko mu nekkin nag ku bëgg sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom sëriñ Sam Diagne ku bëgg itam nag njaboot gi nga xam ne nii nag moom la ko waajuram bàyyeeloon di doomu sëriñ Souleye Diagne nekk itam nag ku fonk nag ay kóllëreem di mag ñi bokkal nag ëttub seex si ba tax na itam nag lu takkoo takkoo takku nag liggéey na ko kóllëre yi takkoo takku itam nag am na ko ba tax na itam nag ñu baree baree baree bare bari tudde na leen doom ci biir ñu mu tudde doom nag ñu mën cee ràññe sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndax moom la yaakaaroon ba tax na tudde na sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma doom tudde na sëriñ mbàkke madina doom bi mu génnee àdduna itam nag sëriñ mbakke maddina moo ko jullee ci ndigalul magam sëriñ cheikh mbakke gaynde fatma tudde na sëriñ ahmadu mbàkke tundoo di doom mi nekkoon doomu mu mamadul moustapha mbàkke tudde na doomu sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ba doom muy sëriñ mbàkke soxna loo tudde na doomu sëriñ cheikh mbakke gaynde faatma ba ba tey itam nag doom muy sëriñ basiiru mbàkke miñ doon wooye sëriñ basiiru buur tudde na waajuru sëriñ mbàkke soxna maam soxna loo jóob maam soxna loo jóob moom daana wax njabootuk sëriñ saam jaañ gi di leen wax na seen waajur wa keroog bi ko feebar bi tëralee laataa ñu koy yóbbu ndakaaru ruy bi mujjee jëfandikoo man mii maa ko togg maa ko ko leel ndax nag a kóllëre gu yaatoo yaatoo yaatu goo xam ne nii nag am na ko nag waajuru sëriñ mbàkke soxna loo bi tudde na sëriñ amdi sekk rijaal doom tudde na sëriñ cheikh kan màggat saar doom mi doomu sëriñ moor kumba kan ku jaxasoo woon ak du Mbenda Fall muy soxna maam Faati Fall la ku jaxasoo woon ak Baye Serigne Diaw Mansour la moom Serigne Mansour Diaw ku jaxasoo woon ak Serigne Moustapha Guèye Dianwéli la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñum loon mu nekk itam nag ku am fit moom doomu Serigne Souley Diagne bi ku bëgg itam nag ko jàmbaare ba tax na Serigne Sam Diagne mas na wax ku ñuy wax Serigne Mor Tandine bokkoon itam nag ci dongaam yi ko yaakaaroon doon ko wax ne nag soo gisee nag ma def la xarit ni nga mel moom moo tax waaye man nag duma xaritoo gone sëriñ saam jaañ nag tudde na ko dooma ngir nag jàmbaar nag gu mu meloon nag ci ëtt bi daana wax itam nag ak njabootam rawatina nag ay taalibeem di leen xamal ne nag man awuma ay taalibe ay nawle ak i mbokk nag la ma suñ borom joxa loolu itam nag tax na du ngeen ma gis mukk nag ci lu ñu xeep bu ma sañoon itam yéen itam nag du ma leen gis mukk itam nag ci lu ñu xeep daana leen wax na itam nag lépp loo xam ne nii daal maa ngi koy defa maag yéen ñooy ànd nag def ko lépp loo xam ne nii itam nag maa ngi leen koy defloo maag yéen itam ñooy ànd nag def ko itam nag ay rakkam la ba tax na itam nag rakkam yi takkoo takkoo takk itam nag tudde na leen dooma ngir jëmmi nag ka ñu bokk di sëriñ Suley Jaañ bëgg lu baax ak xam lu baax googu mu nekkee woon tax na itam nag li ñu tuddee julli ak woor ci njabootuk sëriñ Suley Jaañ gi itam nag moo ko fa indi ci ginnaaw nag bu mu laajee ndigal nag sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde ma sëriñ Saam Jaañ nag am na ay soxna nag yum dëkkooloon ca biir soxna ya nag ñu man caa ràññee ku ñuy wax soxna Mbeen Amar mook soxna Mbeen Amar nag am nañu ak njaboota ñu ak sëriñ cheikh mbàkke jaañ di kam faye sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ak ku ñuy wax sëriñ sang jaañ di kam faye nag rakkam ja sëriñ sang jaañ ak ku ñuy wax soxna xadi baara jaañ ak ku ñuy wax soxna jaba jaañ ak ka ñuy wax sëriñ solee jaañ di kam faye nag waajuróomam wa ak ku ñuy wax sëriñ ahmadu tundoodi jaañ di kam faye nag sëriñ ahmadu mbàkke tundoodi ak maam soxna loo jaañ di kam faye nag waajuru sëriñ mbàkke soxna loo njaboot gii nag la soxna mbenn amar am ak sëriñ saam jaañ beneen soxna nag bu sëriñ saam Diagne nag ak sëriñ Saam Diagne am nañu tim nag ak njaboota ñu mën a ràññee ku ñuy wax sëriñ Hamdi di jaañ ki sëriñ Saam Diagne Faye rakkam sëriñ Hamdi Diagne ak ku ñuy wax sëriñ alin jaañ ak ku ñuy wax sëriñ Mortala Diagne ak ku ñuy wax sëriñ Dan jaañ ak soxna Aminata Diagne ak sëriñ Baara Diagne ak ka sëriñ Saam Diagne Faye woon sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ñu koy wax sëriñ Bas Buur Diagne ak kam faye waatoon waajuróom wa di sëriñ Suley Diagne njaboot gi nag la soxna Mbeen Diagne am ak sëriñ Saam Diagne bu sëriñ saam jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññi ku ñuy wax soxna anta amar soxna anta amar mook sëriñ saam jaañ itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññi ku ñuy wax sëriñ muudu abdoulaye jaañ di kim faye rakkam ak sëriñ mbàkke madina jaañ di ko sëriñ saam jaañ faye sëriñ mbàkke madina ak soxna ngoy jóob ak ku ñuy wax soxna mbeen jaañ di soxna mbeen jaañ nag moom faye rakkam njaboot gi nag la soxna anta amar am ba tey soxna yi sëriñ saam jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññi ku ñuy wax soxna faati amar soxna faati amar nag mook sëriñ saam jaañ itam am nañ Diagne njaboot muy ku ñuy wax sëriñ Mbay jaañ di ki sëriñ Saam Diagne faye woon magam sëriñ Mbàkke soxna loo jaañ di ki sëriñ Saam Diagne faye woon sëriñ Mbàkke soxna Lo ak sëriñ Hamdi Seck Rijaal Diagne di ki sëriñ Saam Diagne faye woon sëriñ di Seck Rijaal ak sëriñ Saam Diagne mi nga xam ne nii nag moom lañ ko duppee mu nekk itam nag am caatam sëriñ Saam Diagne mi bi muy feeñ jamono dafa tombeeg nag waajuróom génn àdduna ñu duppee ko waajuróom ba tey soxna bu sëriñ Saam Diagne dëkkoo woon ñu mën cee ràññee ñuy wax soxna Roqaya Bey mook soxna Roqaya Bey nag am nañ ak njaboot njaboot ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna màggat jaañ ba tey soxna yi sëriñ saam jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna mati njaay mook soxna mati njaay nag am nañ ak njaboot muy ku ñuy wax sëriñ cheikh màggat kan jaañ di ko sëriñ saam jaañ faye sëriñ cheikh màggat kan moom sëriñ moor kumba kan ba tey soxna yi sëriñ saam jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna sopp jaañ soxna sopp jaañ mook sëriñ saam jaañ nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna tëwa jaañ ba tey soxna yi sëriñ saam jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññee ku ñuy wax maam xari saar moom sëriñ fàllu saar moom cheikh ibrahima saar njaañ am nañ nag ak njaboota ku ñuy wax soxna waalo jaañ ba tey soxna yi sëriñ saam jaañ dëkkoo woon ñu man cee ràññee ku ñuy wax soxna mbenda amar mook soxna mbenda amar nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ basiiru géy jaañ ak ñaari soxna yi nga xam ne nii nag sëriñ saam jaañ dëkkoo woon nag ñoom te amuñu nag ak njaboota muy ku ñuy wax soxna marietu sekk ak ku ñuy wax soxna maam faati faal di sa tub sëriñ moodu mbenda faal njaboot gi nag la sëriñ saam jaañ am mu nekkin Fatma ku bëgg itam nag daarul xuddoos lépp loo xam ne nii nag mas na koo liggéey doomu cheikh mamadul moustapha mbàkke bi nag la ko yitta mu nekk nag ku am fulla ci boppam nekk itam nag ku bëgg jàmbaar ba tax na itam nag daana ko wax ay taalibeem di leen wax ne nag képp koo xam ne nii gis ngeen na xaritoo na moom ku nekk jàmbaar itam nag lay doon waaye aw yaa fuusa xawuma ci moom dara te waxuma ci moom dara tax na ci biir ay dongaam sax am na ñum ci tudde doom ngir nag jàmbaar nag gu ay dongaam man de awma ay taalibe waaye suñ boroom nag ay mbokk nag ak i nawle nag la ma booleel lépp loo xam ne nii yéen a ngi koy def maag yéen nag ñooy ànd def ko ci pastéef googu mu amoon ci pastéef googu sax la génnee àdduna ci liggéey nag bu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma doon liggéeyal sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke ci tuuba belal ci tuuba belal googu nag la jëlee nag ak dokk ginnaaw buñ ko yóbboo hôpital nag ci la génn àdduna lam waxoon ay taalibeem di leen wax ne nag lépp loo xam ne ni maa ngi koy liggéey maag yéen ñoo koy ànd yi àndoon i taalibeem ki la jëlee nag feebar nag bu ko génnee àdduna moom doomu soxna Aminata Jaañ bi ak sëriñ Suley Jaañ bi tróndoo sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ba mu ngi génn adduna ci feebar bu gàtt nag bu ko tëral ci bisub àllarba juróom benn fan ci weeru rakkaat ji gàmm ci atum 1396 ci gàddaay gi àllarba juróom benni fan ci weer wi nag di rakkaat ji gàmm ci atum 1396 ci gàddaay gi dëppoog muy mercredi 5 mai ci atum 1976 mercredi 5 mai 1976 ci hôpital bi ñu tuddee Fann ci hôpital Fann boobu nag la génnee àdduna bi mu bàyyi ko ci dëkk bu sell bi nag di Touba di dem Ndakaaru nag ñii nag ñoo àndoon nag moom muy ku ñuy wax sëriñ Sang Jaañ nag di rakkam sëriñ Mortala Fall moom sëriñ Moodu Mbenda Fall ak sëriñ Aline Jaañ nekk itam nag rakkam ñii nag ñoo ko gunge nag ci Ndakaaru ñu jëlee ko Ndakaaru nag indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde faatma moo wax rakkam ji sëriñ Mbacke Madina mu jullee nag doomu sëriñ Suley Jaañ bi jëm nag ci armeer yu mag yi bisub keroog nag sëriñ saaliwu mbàkke ambassadeur di doomu cheikh mamadul moustapha mbàkke moo wax nag ci turu njabootu daaru xuddoos gi di xamal nag askan wi di leen wax ne ku sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma gërëm de mi ngi nii tëdd moom itam nag lañ doon jébbal boroomam naka ni tey jii waaye nag li sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma wax ne nañ leen ko wax mooy melokaanu sëriñ saam jaañ mi ngi mel ne daal ku jëlu bool ubbi nag ab rëbina di duy bool ba ba bool ba fees nag ba rembet laneen itam loo man di defaat ca bool ba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 màggal nañ koy itam nag ci atum 1976 nag ba ci 2016 bi ci juróomi fan ci mois de mai ci atum 2017 bii nag la njaboot gi nag changé nag bis bi di jàpp nag bis bi nga xam ne nii ci la ko sëriñ Saam Diagne yaakaaroon di sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bindoon nag ab lettre sëriñ Saam Diagne nag di ko ca sant ka gërëm ca biir lettre ba nag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ma ngi ca doon wax nag sëriñ Saam Diagne di ko xamal ne yow daal murit saadeex nga baatum murit saadeex boobu nag seen waajur wi amoon ci lettre nag bu ko sëriñ Mbacke Gaynde Fatma bindoon jëmmi murit saadeex jooju nag la ñuy màggal ndax yombul nag murit bu ko am te ñoom nag seen waajur nag sëriñ saam jaañ kamu yaakaaroon di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma bind na ab lettre nag def ko ca màggal gi itam nag ñu ngi koy amale ci dëkk boobu nag sëriñ suley jaañ goroon ci ndigalul sëriñ moodu mustapha mbàkke di naar ga nekkitim nag ci wetu daarul islaam dànki njabootuk sëriñ suley jaañ gi itam nag foofu lañ nekk foofu itam nag la ñuy amale bis bi màggal gi itam nag màggalu bëccëg la lii nag mooy bis nag bu ñuy fàttaliku sëriñ saam jaañ mois de mars nag lay am waaye nag amul bis fixe nag ci biir mois de mars bi heure bu ci njaboot gi waxtaanee ba juboo nag lañu koy amal ñuy ñaan ca ka sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke tuddoon te tudde woon ko boppam ka fa boon léppam jébbal sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ka sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma doon wax ne murit saa dex nga ñu ngi ñaan nag ci darajey waajuram di sëriñ Suley Jaaj ak kam doon liggéeyal nag di Gaynde Fatma yàlla na suñu boroom nag yokk ay leera nag te ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gém fi bàyyi def sutura nag ak barke ci réewum Sénégal amiin